dal leen ak jàmm ci xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci lu tukkee ci mbas mi juróom benn fukk ak benn doomi aadama ñoo dolleeku ci lim gu ko fi jotaam lu toll ko juróom fukk ak benn dolleeku ci lim gu ñu jot a faj ñaar dolleeku ci lim gu si jot a ñàkk seen bakkana tey ci àllarba gi ba fukki waxtu jotee si suba la ñu doon amal levée du ñetti agent leeral yu ñàkk seen bakkan ci bu métti boobee levée du bi nag hôpital principal la ko doon amalee ay kàddu seede yu nga xamante ne mi ngi bàyyeekoo ci ay mbokk ba ñi nga xamante ne ñoo làkku euh, daal dina yi rek jib lépp danañ leen ko gën a yaatalal euh, ci nu mu gën a yaatoo ci kanam tuuti euh, lay doon enquête baa ngi bougé bu baax a baax ci mbirum agent gémi bii di laat Ndiaye mu ñu fàtt ci ba muy amal opération de contrôle de la police ca diwaanu Rufisque xibaar yu bees nag daal dina si am lépp rek danañu leen ko xamal enquête bu ñu ubbi tamit ngir xam anam bu booy jinne amee liberté provisoire mi ngi avancé tamit bu baax a baax gannaaw yu jot jot a juddu eh, ci évasion ki nga xamante ni moo di eh, Boy Djiné eh, danañu wax tamit ci kaddu yu doy waar yi nga xamante ne ni propriétaire yu Sweet Beauté bi di Ndeye Khady Ndiaye moo ko yëkkati ci ay audiowam yu ñëw fuité mu si doon wax ak benn client wam di koy rek proposé ñenn ci ay rek élément wam wa ilaa ñoo koy liggéeyal ka gën set ka gën rafet ak rek ka gën a taaru yooyu lay audio nag daal dinay jur sax réaction yu bëri lool ci réseaux sociaux yi langue politique gi danañu si xuus Moustapha Diakhaté àdduna ci roplaan présidentiel bu bees bi gannaaw ba mu si defee analyse am waaye it am la nga xamante ni daal dina ko si xamle maître El Hadj Diouf daal dina yëkkate ay kaddu ba tuuma yu garaaw lool gàcc ko ci ndodd Ousmane Sonko ci wàllum rébellion ca diwaanu Casamance moom nag tuuma yamu ca tuumal Ousmane Sonko ku ko dégg rek dana jàpp gémmeñ ba tey ci mbirum Ousmane Sonko waaye ñu wax bile yoon ci lu maam Godiassaka tamit xamle ci taxawaay yi te lu mu xamle ci Ousmane Sonko euh, ci wàllum ngóor jigéen euh, lépp rek danañ leen ko gën a yaatalal ci kanam tuuti danañu wàddu jëmale tamit ci njàng meek njàngale mi doonte jéggalu na ci ab vidéo euh, daal dina ñuy rek teg ab daan ki nga xamante ne ni moo di Ousmane Balde mu joxe woon sujet ba ci wàllum góor jigéen ca bac balan ba ñu doon amal ca diwaanu Rufisque gannaaw ba xaalis bu mu gét doon sànni ci suuf rek juree woon coow ca ba mu dalalee suñu yenn artiste Moget daal dinay defalaat li ni mel ki nga xamante ne nii euh, moo di Fata waaye nag euh, Fata na mu réagiré euh, danañu leen ko xamal loolee yëpp bu yembe ñu daal di see toftal xibaaru tàggat yaram addu ci wàllum football laata ñu koy tëjee ak wàllum làmb mbokk yi lii mooy tënk yi ngeen taaxirlu rek nes tuuta gannaaw bàkk bi ñu daal di ànd ak ci yaatal wi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 jëf tab tab seen mu nga ak bàkk ba jib na ma leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal jàmm ci xibaar yi di rafetlu ànd bi ak kóolute gi ci Dakar Buzz bi ngeen di taataanee seen ay xibaar yu wér te wër mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mii di Sénégal tey junne doomi aadama ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn la ñu testé juróom-benn fukk ak benn doomi aadama ñoo ci amee coronavirus bi fukk ak juróom ya si ñoom dañu leen wàll ñeent fukk ak juróom ya ay cas communautaire bu weesoo loolu juróom fukk benn daal dinañ leen di faj ba ñu wër dolleeku ci lim ga ñu jot a faj juróom ca ñu amee tawat ga sonn nañu ba ñu nga sowetage am na ñaari doomi aadama yu ci lim gu ñàkk seen bakkan ci mbas mi si suñu réew mi di Sénégal eh, ba ñu amee nag suñu kaa bu njëkk ci bile feebar ba jamono ji li may waxeek yéen ñeenti fukki junne doomi aadama ak benn ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ñoo ko fi jot a si ñoom ñoo ñee eh, ñeenti fukki junne doomi aadama ak téeméer ak eh, ñeent fukk ak juróom-benn faj nañ leen ba ñu wër junne doomi aadama ak téeméer ak ñeent fukk ñaar juróom-ñaar ñoo si ñàkk seen bakkan jamono ji ñaar téeméeri doomi àddama ak juróom ñoo fi amee coronavirus bi si suñu réew mi di Sénégal ñu leen si traité. tey ci àllarba gi ba fukki waxtu jotee si suba la ñu doon amal levée du corps ñetti agent leeral yu ñàkk seen bakkan laataa ñu leen di jébbal seen famille démb nag ci talaata ji am na suñu naataango yu doxantu kër chauffeur ba Ousmane Ndiaye ba ñu demee soxnaam sa Aminata nga xamante ne nii rongoñ yaa ngi dal ci tournée bi ajjuma la ko woo yónnee ko 10 000 ne ko jëndalal xale yi couche ak la ñu soxla ci ëllëg sa samedi mu woo ko ne ko yegg nañu ci dibeer bi it mu woowaat ko nee na waaye jotuñoo déggante ba loolu weesoo Aminata ne xibaar wi nag tiis na lool ci moom ndaxte dafa xëy rekk yaramam wi yëpp dee mel ni daf ko yëgoon daal ci yaramam fekk yaayam ñoom ak ñenn si famille bi yëg nañu ko waaye waxuñu ko dara si mu ne mu daal sangu jàpp julli defaral plaisir mu taal télé ba daal rek yem ci choc bi di lu métti lool ndax Ousmane daf ko jege woon euh, ba ñuy xale la ñu xamante mu xamle ko. mu prévoir woon jël soxna si njeextalu tournée économique njiitu réew mi mag yi sàll Macky Sall Mamadou Yoro jàlloo euh, di kenn ci agent yu groupe leeral yu ñàkk seen bakkan ci ab accident bëgg-bëggam boobee du mu saantu gannaaw ba yàlla dogalee lii tey euh, Yoro nag mi ngi sokkeekoo Kanjalang di ab quartier bu nekk ca Ziguinchor bu ñu sukkandikoo nekkaloon leeral lu bëri yoro la ñu ko doon sas ndaxte dafa bëggoon liggéeyam di si doon dem ba jeex a tàkk li ni mel sax nee na moo tax saa su mission amee ci biir yow mi moom rek lañu ñu cay yebal da doon jël sax ay risques yu bëri yit ci liggéeyam ma Mamadou Yoro jàlloo ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai sax la jógee ko voyage foofee ca Ziguinchor ak Zahra Iyane Thiam ministre bu yor wàllum microfinance waaye itam économie sociale et solidaire bu doon jox ay subvention groupement jigéen yu Casamance. gannaaw accident bu am ci yoonu Kédougou bi euh, ba ñetti agent wam ñàkk si seen bakkan ñaar jëlee si ay gaañu gaañu altine ba la ñu génn yemoo woon ak fanweeri fan ak benn ci weeru mai président directeur général du site d'information boobee di leeral point net Dame Dieng daa fas yéene gunge famille yu victime yi si circonstances yu métti yile moom nag daa dina jox famille yu ku nekk benn million si suñuy koppar ba noppi dig leen ni doon fay ba mu mot at ah, bu Ousmane Sy ah, Mamadou Yoro Diallo ak Ousmane Ndiaye ah, ñoo ngi ñàkk seen bakkan ci ba njiitu réew mi Macky Sall di amal tournée économique am bi lu ñeel ña si jële ay gaañu gaañu Thierno Kane mi ngi si génn ak ay gaañu gaañu ci om bi ci waxtu nga xamante ne nii Aminata Sow mi ngi ci génn ak ñaari damm-damm ci loxo càmmoñ wi ak ay gaañu gaañu ci côte yi lu doy waar lañu daal di gis ca diwaanu Rufisque benn soxna ba nga xamante ni tubaab la la fekk mu ñàkk bakkanam ca àllu Tiwaawan pël ba néew wi nag identifié guñu ko waaye ubbi nañu si enquête ngir mën a xam rek lu leer ci boobule mbir leneen ma junj leen ko ci bopp xibaar yi enquête baa ngi bougé ci mbirum agent Gémi bii di laat Ndiaye amuñu faat ca ba muy amal opération de contrôle de la police ca Rufisque ku doon dawal BMW ba ma Diop ay atam toll si fukk ak juróom-ñeent amul woon permis de conduire bu ñu sukkandikoo ci libération ba tey bu ñu sukkandikoo ci journal bi contrat wu location bi ak CMC wu BMW bi baaxuloon maanaam daal lépp foo concessionnaire bi Cheikh Tidiane jeng ak transitaire yi di rek Seydou Koné ak Pape Demba Wade teg nañu leen loxo groupe copain yooyee nag ñoo ngi luwe woon oto bi ci njëgu quatre-vingt mille francs fa ngir ñaari fan amul nag kenn si ñoom ku ci am permis de conduire enquête bu ñu ubbi ngir xam anam yu booy jinne amee liberté provisoire maanaam bàyyim dëgganeeku wa ilaa sax ndawam wi mi ngi avancé bu baax a baax ci waxtu bu Boy Djiné di accordel interview waa ITV euh, télé wu groupe média boobee ay élément wu administration pénitentiaire bi ña nga xamante ne ni ñoo doon garder ci moment bu booy Djiné di daw daal nañu leen di teg loxo euh, bu ñu sukkandikoo ci les échos ab sanction administrative bu fas yéene indi lu leer euh, ci bile mbir di mettre en jeu crédibilité wu administration beeg justice sénégalaise bi détenu bi di Baye Modou ñu gën koo xam ci turu ba Boy Djiné ndax rëccam yu bëri yi ci kaso yi daal dinay réussir fukk ak ñaareelu tentative am daal di quitter quartier sécurité bu camp pénal bu Liberté 6 ci ëllëg sa nag la def interview ak i rajo di xamle lu waral mu def li ni mel laata mu leen di accordé la interview ak image am ngir dikkaat en détail ci situation wam rëccu ba Boy Djiné bi tàmbale naa jur ay conséquences directeur camp pénal moom moomee di wuyoo si turu ba Baye Aley Konté inspecteur Oumar Diop bu nekkoon ba fii may waxee ak yéen ca division de la sécurité pénitentiaire moo ko dal di wut ñu fàttali leen tamit ne rek agent yu nekkoon garde yëpp daal di nañu leen di teg loxo. ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz kàddu yi doy na waax lool propriétaire Sweet Beauté di Ndeye Khady Ndiaye daal di nañuy fuité ay audioom ya nga xamante ne si nii da si doon waxaale ak benn client wam di insister si ay produit wam circuler ci internet bi Ndeye Khady Ndiaye mi ngi siy wax euh, client wam bi naan ko rek euh, jigéen bu ñaaw bi du la neex ci beneen audio ba euh, muy wax benn jigéen bu tudd aji bu mu ne rek set na rafet na te it njool na ba noppi ne ko daal soo ko gisee di nga am dara kàddu yooyu nag doon na lu jaaxal ñu bëri lool. aywa ma addu jëmale ci mbirum sàccu ba fréquence yi mbir yi nag traîné wul benn yoon ca côté 2STV patron chaîne privée boobee El Hadj Ndiaye daal ba fréquence ya muy duut baaraamu tuuma waa télévision Futur Média bu Youssou Ndour El Hadj Ndiaye nee na sax déposé na ab plainte ca gendarmerie bu Faidherbe gannaaw ba mu xam leen ni ci waxtu bu CNRA di bëgg a indiwaat ordre état à travers ministère de la communication di bëgg a instaurer l'équité ARTP di bëgg a tëj ay chaine de télévision TFM moom mu ngi woon nekk rek di sàcc ay fréquence si noonu mu ne dafa bëgg nag yoon def liggéeyam ndaxte a rester te ñu di rek sàcc ay fréquence sama El Hadji Ndiaye euh, nee na sax débauché nañu ay agent wam ay technicien ngir ñu joxe ay numéro fréquence sama ba loolu weesoo la plainte ba mu annoncé woon nag daal dina koy def jëmale ko ci x euh, te yaakaar na ni état dina appliquer loi bi ndaxte mënuñoo bëgg a tëj seen TV ngir ay mbirum politique ba noppi di seetaan injustice euh, bi ni mel politique muy amal tournée économique njiitu réew mi Macky Sall mi ngi woon ci sud-est réew mi li mel nag occasion la ci njiitu réew mi ngir mu amal yenn inauguration waaye itam euh, def ay promesse maanaam ay ndige euh, ci cadre boobee Macky Sall daal dinay xam le ni dinañu def ñaari aéroport yu bees ca gox googee benn bi Kédougou beneen bi Tambacounda euh, Macky Sall nee na it dinañu defaraat ay aéroport sénégalais yu bëri lool bokk ci bu Saint-Louis Cap Skirring wa ilaa sax bu Kaolack Moustapha Diakhaté daa dinay àddu ci roppalaan présidentiel bu bees bi moom nag nee na wolof Njaay daane rek sàccub ndënd yomb na waaye foo tëggee dina jafe te kuy naan di nëbbu soo man dee feeñ ba tax daal mu jàpp ni euh, bu njiitu réew mi Macky Sall euh, doxalee woon euh, nu kilifa war a doxalee lu mel ni du ko dal ndaxte bu fekkee ni sénégalais yi dañu la fal di lay fay weer di la jox alal joo liggéeyee sooy jëfandikoo seen alal mu jëm ci yow dañu ko war a yëg ba tax na daal gouvernement bu Sénégal président Macky Macky Sall la mu ko jiite moo tooñ waa Sénégal ndaxte jënd ba roplaan daa jarul la nëbb te lu si gën a doy waar mooy rek la ñu ne armée bi moom moo jëndal roplaan boobee président te loolee di liggéeyu bu armee ndaxte armée la ko sant mooy jënd avion ngir défense territoire nationale bi ba tax na daal mi ngi ñaaw lu condition yu sénégalais yi yëggee rek jënd bu roplaan présidentiel bu bees bi du samay kàddu Moustapha Diakhaté moo ko xamle. comme nu ma leen ko euh, junjee woon maître El Hadj daal dina yëkkati ay tuuma yu graaw lool daal di koy gàcc ci ndoddu njiital Pastef bi Ousmane Sonko ci wàllum rébellion yi ca diwaanu Casamance euh, maître nag nee na Sonko mooy naan rey leen président yi rey leen nit yi reyante leen euh, ba noppi ne ñaari vague yuy ñëw mooy ëppati ñu dee moo koy jiite ba tax na daal leer na nañ ndax ku wax feeñ maître nee na nag Sonko dem na sax ba ne Macky Sall bu deful la mu bëgg dina reylu ay junney junney doomi aadama te bés yële sax ñu génn. moomu Sonko moo ne waa Casamance teg leen armes yi ci suuf te nag ku bokkul ci dara doo seen chef ana noo leen ni mën di joxee rek ordre ngir ñu teg fetel yi ci suuf ci noonee maître ne kon kay ndekete yoo kii di Ousmane Sonko moom mooy chef borom fetel ya moom moo jiite ndekete yoo MFDC jiite rébellion ca Casamance. ba tey rek ci mbirum Ousmane Sonko waaye bile yoon ak kaddu yu Mame Gor Diazak xamle ci malaise ba mu defoon Bignona Mame Gor dem ca marche pacifique ba doon amal ngir wàllum góor jigéen yi waaye dafa amoon malade ba loolu weesoo mu ne nag teewaay gi rafet na lool waaye daal teewaayu ba ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko bés boobee daf ko xaw a jaaxal ndaxte dégg na à travers bi ñu ne kii di Ousmane Sonko ba ñu ñëwee rek di ko signé loo pétition bi daf ko bañ a signé te nag sénégalais yi yokk la ñu mën waaye du ñu sos rax si dolli Sonko mënuñu ko jiiñ viol kako ko jiiñ ne sàkku ci gannaaw te ñëpp xam nañu ne euh, mbirum góor jigéen ci gannaaw la ñuy sàkkuwante ba tax na képp ko mën a sàkku jigéen ci gannaaw rek euh, mën na sàkku góor ci gannaaw ba tax daal euh, mu gis ne teewaayu Sonko amu fa woon sens ba mu ca noppee nag la addu ci malaise Sonko ba ca Bignona ne Sonko amul benn malaise dara dalu ko Sonko daal maam góor nee na da doon théâtre képp ndaxte manipulateur la te mësuñoo gis sax kuy def malaise di jàppandu te ndaxte footballeur yëpp yu ñu gis ñuy def malaise ci àdduna bi dañuy siy jël jëlee lenn wa illaa ñuy ñàkk ci seen bakkan ñenn ñi euh, ba tax na dal mu jàpp ne kii di Ousmane Sonko la mu def euh, wéeru dal di jàppandu euh, ci ay nit ba ñu téye ko loolee du malaise yennuwul maanaa ba tax na daal Sonko na xam ne mënula théâtre ba jiite réew mi mu xamal ko ko moom maam góor jazaaka aywa ma àddu jëmale ci njàng meek njàngale mi doonte jéggalu woon na ci ab vidéo da dinañuy tekki ndombal tànku ba Ousmane Balde ngir sujet ba mu joxe woon ci wàllum góor nationale euh, ca académie bu Rufisque ci épreuve anglais bac blanc ba inspection d'académie bu Rufisque bouclé na rapport am ba noppi euh, ci boobule affaire ba war sax jébbal ministre euh, Mamadou Talla fi mu ne nii nag ministère de l'éducation nationale taxaw na ngir veiller ci sujet ya ñuy proposé ndongo yi ci seen examen yeeg seen composition yi xibaar bu nakkar yi daal dinay tàbbi ci daara ju kawe joojee di université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru docteur Mame Thierno Ibrahima Wade moo génn àdduna li ni mel nag doon na xibaar wu nakkari lool te triste ci communauté scientifique sénégalaise bi bu ñu sukkandikoo ci seede yi docteur Mame Thierno Ibrahima Wade Baay Fall la woon nit ku calme sérieux di spécialist scientifique yàlla na ko yàlla yërëm te xari ko ca aljana people dama koy dooree que le motif duudu beeg ngóor bi ak lu si maam góor Diazak xamle doomu Rufisque bi nag nee na daa jàpp ne ndaw yu bëree ngi def yenn affaires yi waaye nag ils ne sont pas du tout conscients ndaxte nit mën na am jëm fekk te intérieurement xale la bu ko defee bu ñu nekk kañu bëgg def yenn yi yaakaar ni c'est privé ay nit jóg nag ngir yàq seen carrière yàq seen adduna ka nga xamante ne ni ëllëg daa war a am ay soxna am ay doom wa illa am ay doom nga jël image am ak ay awram teg ko ci mbedd mi ne ko fang nee na loolee daal amul sens si noonee maam góor nee nag am na it ña nga xamante ne ni dañu salte amit ña koy def ngir wut buzz. gannaaw ba xaalis bu ma gétt doon sandi ci suuf ba mu dalalee suñu yenn artistes yi ci États-Unis naan leen bale leen juree fi coow lu rëy lool moo gétt daal dinay defaat li ni mel ca Atlanta ba Fata nag xaalis bu bëri lool la ko moo gétt jóoralaatal ko defee woon rek ak na mu ñamu njëkkoon dalal am na sax kay naan Fata jëlal xaalis bi waaye daal dafa mel ni Fata daf leen ignoré te yooyu ci yàbbiwu ci tey it gisuñ ko benn yoon si vidéo bi mu sëgg di for xaalis bi mel ni kon moom moomee di Fata mi ngi moytandeku coow la judd woon sa ko fa jiitu dal di juddu ci moom. tàggat yaram équipe nationale bi laa koy dooree juróomi fan ci weeru juin équipe nationale bu Sénégal dina dajeek ci match xarito yi laata muy dajeek Cap Vert juróom-ñetti fukki fan ci weeru juin eh, ngir ñaari match yooyee ñu war a joué ca stade Lat Dior bu Thiès Aliou Cissé dina ko amal sans Habib Diallo ak Sada Thioub ñoom ñaar ñëpp forfait eh, ngir nag remplacer leen eh, sélectionneur national bi Dawo Abdallah Sima ak Mame Baba Thiam ngir ñaari jongante xaritoo yooyee ñu war a amal ngir waajal éliminatoire yu kan bi Aliou Cissé ñaar fukk ak juróom-benn joueur la woo malheureusement ñaar si ñoom duñu disponible ci ñaari jongante yooyee Diallo dañu ko mujjee déclaré forfait attaquant de point bi Mame ba Thiam moo ko dal di wutu bu dee Sada Thioub nag moom dañu ko testé mu positif ci coronavirus bi ba tax na du jouer ci ñaari match yooyee moom nag Abdallah Sima la ñu ko remplacé la. xibaar yi wàllum làmb la koy buuree ak lu tax Eumeu seen mujjee nangoo affronté kii di Balla Gaye 2 Gaston dox ko def na ay bës yu bëri combat Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène sottiwul woon la ko waraloon bu ñu sukkandikoo bu rëy ba nga xamante ne ni écurie Tay Shinga moom la doon laaj ngir wane ni bëgg la bëreek Balla Gaye 2 bu mu daan ñaari yoon Eumeu Sène nag mujjee na changé avis ndaxte kii di Gaston ficelé na boobule komba lu waral Eumeu Sène deltu gannaaw bu ñu sukkandikoo rek ci kii di Laxat njaay mu yor communication Gaston Mbengue ay jege ñaali Eumeu Sène ñoom ñoo si intervenir magam Pape Ngom ak Pape Pam ñoo ko wax mu signé mu daal koy def Eumeu Sène nag signé mita ak ki nga xamante ne ni moo di Bombardier eh, bu ñu sukkandikoo ci promoteur bii di Gaston Mbengue combat yëpp eh, ci ñaari saison la ñu koy amal waaye combat ci diggante Balla Gaye 2 ak kii di Eumeu Sène at muy ñëw rek lañu koy amal.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 votre Orange Money jërëjëf tap tap sen